bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin euh, jërëjëf euh, laaj bi fahmi laaj lu am solo la muy ni sëriñ woote bi mu woote woon jamono bi ñu toll nii gis nañu wàllug euh, matériel gi moom mi ngi dox du lool waaye wàllug rawxaanee gi dafa manqué hmm. loolu lu am solo la ñu laaj ko am na benn xale benn xale bu bind sëñ Muntaxa leetar di ko wax ne ko man damaa gis ña daan tarbiyawu bu jëkk ku ci masaan tarbiyawu ba wàcc dañuy gis ci yow lu ñuy xeeme benn muy wàllug àdduna wala wàllug diine ma gis jamono bii nu toll nit dana tarbiyawu ba wàcc doo gis dara ci moom doo xeeroon dara ci ci wàllu diineem bu lee ci wàllu àdduna boo ko gisee danga nga koy yéene ab sarax may laaj ba xam ndax li fi nekkoon dafay nekkatul ndax mooy di am na xale bu ko laaj ci tontu li ko si mun taxaa tontu dañu ko léegi yàlla bi muy bind jaam ñi da leen a bind ngir ñu jaamu ko mm-hmm. loolu moo taxoon mu tànn ay yonente yónni leen yonente yooyu ñooy dox ba ci sunu yonente bu mujj bii léegi yonente bu mujj bii bi mu wotee loolu yi moo dox ba agsi ji loxoy Serigne Touba sëriñ Touba bi mu ko jëlee moom itam wane ko ñi ko jëkk a topp bëgg a jaamu yàlla tax ñu ñëw topp si ko ñoom ba ñuy jóg dañoo xamoon li leen tax a jóg ka xam li ko tax a jóg nag bi mu ñëwee dina ko wut ni mu ko war a wute bi mu ko wutee ni mu ko war a wute leer googi mooy nekk ci ñoom ba bu ñu génnee ku leen gis jëmmi Sëriñ Tuubaa la gis ñoom loolu moo war a résultat yi ñu daan gis dañu tuddee ak ceex du caagee sëriñ bi moo daan bind ci loxoom di wax kenn seexal na waaye nit ki day ñëw jël Sëriñ Tuubaa dund ko ba génn nit ñi gis ci moom jëmmi Sëriñ Tuubaa ñu topp loolu moo daan andi résultat mooy ñi ko daan wut dañoo xam li ñuy wut wute ko nañ ko war a wute mu ne nag jamono bi ñu toll jamono bi ñu toll li fi des mooy mag ñu amoon Pastef seeni doom des fi ñu nàmputal leen Pastef boobu waaye xam la leen tax a jóg nag defuñ ko te nit ki li ko tax a jóg bu ko xamul du ko wuti na nga ko war a wuti te mbir mi boo ko wuti wut na nga ko war a wuti doo ci am résultat ba nga ci waral daal ni lii ma waral gone léegi yi ginnaaw nga xamante ne léegi ñoom maanaam seen baay ak seen i maam leen ci nàmpatal képp ñu di ko def waaye xaqiiqa la leen tax a jóg xamuñ ko loolu li ma waral ngir ñu mën cee am résultat yu mel ni yem ak ñi daan am du yomb du yomb wax jëpp loolu la. la ca des nag mooy mooy mooy jëmmi tasawuf dara la ci diini islaam maanaam euh, islaam dafa doon dafa yaatu dafay dafa daj àdduna day day maanaam lépp nit rek mi ngi ci biir islaam tasawuf nag ab branche la ci benn ak matière la ci léegi bi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jógee yonente bi daana ko dund saxaaba yi daa ko dund waaye bi fi yonente bi jógee ñenn ñu ne ci ñi ko toppoon dañoo seet la la fa seenu ma neen jëm ñu jëm foofa ñii dañoo jóg di gëstu xadis yi di ko leeral ñee jóg di gëstu biir xadis bi fiq biñ ci war a dégge di ko leeral ñooy fuqaaw yi hmm. ñee jóg ñoom di yar seenu ruu muy tarbiyatu ruux yi ñu yëngutu jëm ci côté boobu mbirum sëriñ biir noonu la demee hmm. bi mu ñëwee woote tasawuf la indi ci la jaare waaye nag maanaam diina ju complète la hmm. lii murit yi def jamono bi ñu nii ci lim doon woote la bokk muy nàmm sab xol ba alal du ko fees ba loo yor ko joxe nga tabe mu nërgën la ci liggéey ba nga nangoo liggéey woyof toy it ba koo gis jàpp ni moo la gën bi muy sos euh, daara ji ci Touba ci ñeenti tomb la ko sos ñenn ñi daara lañu juy tarbiyewu ñenn ñi dañu leen di jàngal alxuraan muy sindaam Abdourahmane yor ko ñi ci des ñu di leen jàngal xam-xam borom daru yor ko beneen murit bi ci des nag muritu ñeenteel bi mooy murit bi nga xam day ñëw di siyaare si bu ñëwee joxe addiyaam sëñ bi jox ko ay ndigalam ak i ndénkaanam mu delluwaat di jëfe loola ba bu muy dellusiwaat xam nga lii mu laaj ne day mel ne jamono bi ñu toll nii murit boobu daan ñëw rek bu ñëwee ñu siyaare si joxe addiyaam delluwaat ba ay jamono mu dellusiwaat day mel moo fa des ndax boo xoolee la gën a dox fee ci Tuubaa mooy daayira yi hmm. mel moo fa gën dox waaye fekk nag des na Eh, dëgg la lu ci ne laal nañ ca laal nañ ca waaye lii daa gën a fës. lii daa gën a lu ci ne laal nañ ca ngir jàngalekat yaa ngay jàngale ñay jàngale alxuraan. Hmm. ñay jàngale xam-xam ña ngi koy jàngale. léegi ñay tarbiye it ña ngay tarbiye léegi nag waaye li gën a fës nag jamono bi ñu toll nii mooy murit bay jógee ci àll ba di dajale ay adiya di ko andi. Hmm. daayira yi day mel ne ñoom rek ñooy murit gi fi ñu nii. Hmm. waaye nag lu ci ne kon dafa gën a fës waaye lu ci ne ma ngay dox nag kon nag. ñaareel ba it léegi lu jëm ci wàllu dundug ruu dafa doon lu jafe ndax doomu aadama dañ ko bind ci bànneex moo tax lu ci ëpp bu ñu tegee dundub roo teg dundub yaram boo wëttuwul dundub yaram ba lay gën a fonk loolu moo waral ci ci ci bari na ci ci nit ñi ñoo xam ni ci misaal sëñ Sëriñ Saliou bi mu fi ñëwee moom wàllu tarbiya tarbiya wax naa leen léegi ne leen mooy jàngale jëf bokkut ak jàngale xam-xam da ngay imaam xasali bi mu ñëwee ci ab sëriñam dane ko da ngay dem ñu jàngal la xam-xam boo ñëwee ma jàngal la li nga koy jëfee hmm. kon tarbiya jàngale jëf la waaye nit ñi umpale nañu ko ba sëriñ bi sax da ci daan am jafe-jafe moom moom sëñ Saliou moom mi xamoon tarbiya daan wax ni yoon wi ma leen teg mooy yoon wa lëmbatuuma li may def sax daana ci am jafe-jafe nekk naa xel koom léegi am ku fa ñëw ni ma sama doom jiikat fan yii dama ko téléphoné waaye ni mu waxee ak man daal gis naa ne xel mi dikk na ba dama ko bëgg a defaraat la ay kayitam li ma jubloo wax xuma ko ma ne ko kayit yi demee na ki ma àndal ni ma li mu la jubloo wax mooy doomam ji daf ko dugaloon ca école bi muy jàng Hmm. léegi mu daan taxawaan taxoon mu indi ko ci daara ji hmm. bi mu ko indee ci daara ji mu am fi ab diir nag bi mu ko téléphoné ni xale bi waxee moom gis na ni eh, mu ngi yaru daal mi ngi soppi ko hmm. mu bëgg a defaraat ay këyitam pour delloo ko ci école ba <laughs> mun ma lii la jublu bi ma ci waxtaanee sëñ bi sëñ bi leen waaw ñoom de daara moom daanaka dañu ko jàppee ne ab kaso rek nga xam ne xale boobu bu teguwul ci aw yoon dañ ko naan ah boo bàyyiwut li nga dañ lay yóbbu ci daara ja ki nga xam ne noonu képp la jàpp daara nag wër sa mën a am résultat ci daara waaw fokk nga xam xaqiiqa bi sëriñ bi woote woon mhm. waaw bu ko defee nag xaqiiqa bi mu woote woon la la koy fonde mooy dundal ak ruux mhm. ci ak jaamu yàlla ak dëddu àdduna ginnaaw boo dëddoo àdduna bu dof nag àdduna mën naa dajaloo ni kër kër ni këpp ci sa kaw waaye bu boobaa fa nga ko war a dugal da ko fa dugal mhm. waaye nag nit ñëpp nag ñoo doon doo ay soofi yu waaye nag yar bi mu doon yare lii mu di def fi mu toll nii ci la muy ba na ko joxe sa alal muy woyof ba na ko wàcc muy sa moroom euh, sa nga jàppee ko ne si jëmmi bopp. loolu dara la ci. waaye nag léegi ñëpp mënuñoo maase nag doon nag ay Sëriñ Tuuba. ñëpp mënuñoo maase doon ay Seexu Murabbi. waaw kon dañ xam ni maanaam dafa doon lu yaatu. lii ñu nekk ci la bu ko defee nag léegi ku mën a dund lii muy tabe di joxe alal loolu ci murid gi la bopp. ku mën a dund doon ab soofi yu boo xamante ni da ngay not sa ru sa gro sa not sa bakkan di ci nërgën ay nit loolu ba tey ci la bokk. naka noonu day lu yaatu dal waaw waaye du caggeen nag léegi dañoo ñàkk sens ba lam doon woote defuñ ci dara lu ci bari mi ngi fi te loolu daal di gën a fés la ca des ñàkk fés waaye yëpp a ngi fi bu képp koo xamante ne bëgg ngaa dund tasawuf it mbaa nga la ci fànn googu sëñ bi doon ware ba fii nu toll ay daara ngi fi yoo xamante ne loolu la ñuy dox jërëjëf jërëjëf <laughs>